السلام عليكم ورحمة الله وكي نجل نجل نزيار إلى أن بعد الحق نعن برمي ورن جغل حديث تايب لفعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صحيح الجامع يعني انت بدفع حديث بنا تاخي نيالنا كدم تكنا يلا ألك yàlla jox ko résultat yi mu doon liggéey ci àdduna mu fekk ca ay astaghfirullah yu bari yu mu daan def te xëy nag mooy dugg aljanna xadis bi mu ngi ci saxiixul jaamic kon bu ñu tayyi benn jamono benn yoon di jéggalu borom bi subhanahu wa taala jàng astaghfirullah di ko jéggalu bañ am lim nag say bu ñu jullee rek lu mu gàtt gàtt nañ koy def soixante-dix fois wala sept fois wala ku ci nekk la rek nga def ko ndax istigfaar kat sauvetage la ci bi borom bi subhaanahu wa taala moo leen seen borom bi ndax moom kat mooy jéggalaa kon bi ku ko jéggalu mu jéggala te bu ko jéggaloo dana leen ubbil wërsëg euh, ubbil leen ay may yaatal seen dund te barkeel ko waaw yooyu yëpp kon ñëw yi tàyyi jàngi astaghfirullah di jéggalu borom bi subhanahu wa taala ndax nit dafa doye di fa matadi kenn mënul garanti ne di nga dund te def bakkaar bakkaar yooyu nag ay taq-taq la doon ay tilim tilim lu koy foot astaghfirullah moo koy foot boo koy wax nag nga di ko teewlu hakada hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu